ñi ngi ak euh, maître dinar Ndiaye bi nga xam te ni bokk na ci avocat yi layool ñaari député opposition bi euh, tey jii ñu ngi woon ci cour d'appel bi lu fa xew. waaw man la maître Abdinaar Ndiaye avocat à la cour bokk ci ñi xam ne ñooy layal euh, les honorables députés masata Sam ak euh, ki ñuy wax Mamadou Niang effectivement tey euh, cour d'appel évoqué na seen affaire une troisième fois pour effectivement àtte ko mais li ci am mooy avocat yi xam ni ñooy défendre la dame Aminata Ami Ndiaye ñoom ñoo sàkku ci tribunal ñu dàkkal leen ko ba beneen yoon donc audience bi dañ ko dàkk ba le 14 août incha allah pour plaidoirie. mais ñoom joxuñu benn motif lu tax ñu war a dàq. waaw joxoon benn motif nag ñoom dañu wax rek nii dañ doon sàkku daal ci cour d'appel ñu dàkkal leen affaire bi ba le 14 incha allah pour ñu mën a fekke waaw non ñun amul ci benn problème ñun moom heure bu ñu woowee chaque à chaque instant ñun dinañ teew. pour défendre. pour ce qui est seen mandat intact xam nga ñi ñiy wax naan euh, en fait euh, député ak seen manda bi dañoo xamul yoon ni muy tëddee waaye ba fii may wax ak yow Massata Samb ak Mamadou Niang ay député yi réew mi la nu te dara maanaam xañagu leen ko. ba keroog layoo bi jeex tàkk. waaw ba keroog layoo bi jeex tak te layoo bi sax bu jeexoon tàkk ba tribunal de maanaam euh, daan leen maanaam de manière définitive dafa am une procédure administrative bu mën a tax ñu jëlee leen fi loolu nag comme ni wax mu ñoom ñu am opportunité bi. mais loolu àggagul te parce que tribunal lii xam ne dogal nañ ko ci njalbeen mën nañ koo teggi waaw.